bu fekkee sa empreinte baaraam mooy wane sa euh, personnel sa melokaan yow ci sa bopp mooy wane sa jëmm ndax empreinte kenn bokkalewu kook moroomam bu dee nag sa bos mooy wane yaway kan kon rawatina sa empreinte làmmiñ moom it day wane naka lañ la yare sam yar lan sam moo ci jóge ci résultat waaye itam say jikko ndax kawe na am suufe mu ne kon fexeel ba nekk ab jeexiital bu rafet fooy tamponné rek na nga fexe ba tampon ba rafet muy ci sa làmmiñ surtout ndax làmmiñ moo gën a gaaw ci feeñal nit ki wolof day wax ni ku wax seeñ te it dëgg la ndax ñaare liy génn ciw làmmiñ moo nekk ci xolub boroom te moom la am xelam togg moo tax làmmiñam di ko tudd te xol ak xel lépp luñ génnee rek ci jikko la jóge looloo tax nit ki buy wax rek nii daal di mën a xam jikko ci yaru wax ju am teggin ju yaru ju yiw lay wax waaye ki xamadi mbaamu mu ñàkki teggin wax ju doyewaar lay wax wax ju ñagas wax ju ñàkk kersa wax ju xumb wax ju nitewut wax ju dëng toujours ki mel noonu loolu lay wax moo tax mu ne la kon sa baaraam rek bi nga xam ne empreinte yi ci nekk yow kenn ku nekk ci doomu aadama yi liñ ñuy bari bari ku ne sa bos bul bokku teg sa bosu moroom moo la mën a wane bañ xam yow la kan rawatina kon sa empreinte làmmiñ bi nga xam ne boo waxee kàddu kàddu googa ñëpp ñi ko dégg dañ koy jàpp daal di mën a xam yow ci saasi say jikko num mel sab yarit num mel kon loolu moo doon doonoon xikma bi ñu fexe fexe rek bu muy rafet toujours ndax rafet gi am na njariñ lool ci ñun waaye amal na njariñ ñi nga xam ne ñu sës ci ñun buñu fàtte mukk di julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam ak i saxaabaam yàlla na ko sunu borom dolli xéewal ak mucc di sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa